président bu groupe parlementaire Yewwi Askan Wi dafa daal di gis ne rek wax bilan nekk na mbir moo xamante ni rek mbir mu teel la comme ni ko président de la république waxee ñetti weer képp rek la ñu def ci bopp nguur gi waaye nag moom ci jëmmi boppam nag nee na daal teel na rek ñu daal di def rapport ndax bëgg-bëgg bi nga xamante ne président de la république ak gouvernement bëgg nañ ko rek mooy lépp loo xamante ne rek digge woon nañ ko mu ñeel ay engagement di koy jëfee ba ñu sukkandikoo ba tey rek ci député bi nee na nag li nga xamante ne gis nañ ko rek kii di président de la république daal dinay démissionné ci poste secrétaire général bu Pastef formation gouvernement bu mucc ayib nag la ñu daal di gis lu toll ci ñaar fukki ministre ak juróom ak juróomi secrétaire d'état yi nga xamante ne rek mu nekk demande boo xamante ne rek sàkku woon nañ ko nag ci képp koo xamante ne rek tabb nañ la nga daal di démissionné ci poste yi nga xamante ne rek daal di nga koy occupé moo xam maire wala président conseil départemental mbir mu ne mel lañ ca jublu dul lan rek lu dul gën a concentré wu rek liggéey gouvernement bi ne nag ci wàllum réalisation ak yeneen action xam ne bëgg-bëgg bi nga xamante ne rek jamono ji mu ñeel seen projet bi nga xamante ne rek fas yéene nañ ko remplacer ak Sénégal émergent mu nekk nag mbir moo xamante ne rek dinañu ko ñoŋal waaye mu nekk mbir moo xamante ne dina disponible fii ak weeru septembre daal dinay wax nag ci lu ñeel plan yi nga xamante ne rek ñu ngi koy def ginnaaw bu ñu gisee agenda législatif yi nga xamante ne rek fas yéene nañ ko teg ngir règlement intérieur bi waaye nag lu toll ci 83 projet de loi yoo xamante ne rek centaine ay décret lañ ak ay arrêté yoo xamante ne rek fas nañ ne amal ko ci mbir mu nu mel nag ne na jot nañoo gis ci wàllum justice nag organisation bu mucc ayib gannaaw dialogue national bi nga xamante ne rek def nañ ko ci wàllum justice ci wàllum yoon ak réforme yees yi nga xamante ne rek fas ne nañ ko teg ngir gën a ñoŋal boobu les justice daal di koy euh, moderniser ak rapport bi nga xamante ne rek kii di président de la république nag jot nag ca def muy kat bi nga xamante ne kii di ay dafe daal dina koy yëkkati jërë ngeen jëf ci ànd bi leen fàtte abonné abonné bés cloche de notification yi ngi dara bañ leen raw